bismillah jàngoro ji day ah ndekete bàyyiwul kenn de tribune ne en tout cas tolluwaay jàngoro ji day ca Petite Côte ba Mbuur ak lu ko mbir ma doy na waar lool parce que nag am na ci xale boo xam ne kon ñaari atu yàlla dong la ah mbir ma da dal de waaye bomb ba nga xam ne moo fa tege tam doy na waar dama ne la xale boobee kenn xamul fan la ko jëlee ba léegi ni lé eh, communautaire la fanweer ak juróom-ñeent ci doomu aadama yoo xam ne ko ca Petite ñaar fukk ak ñaar yoo xam ni kon tëkkër docteur la ñuy liggéey dañ leen a beer allahu akbar laa ilaha illa allah bog soob di dama ne la hôpital principal bu Ndakaaru de wàlla te nañ leen allahu akbar benn soxna soo xam ne de ah, dañ ko xool mu am jàngoro ja daal di wasin césarienne la waaw yéene kaa gi ne waaye bébé ba de xoolaguñ ko déedéet tribune yéene kaa ne lu tolloo fukk ak ñaar ci ay doomu aadama kon ñàkk nañ seenu bakkan allahu akbar téeméer ak ñeenti de ñoo ko am démb laa la te gis nga ki nga xam ne kon moom moo faatu démb waaw fanweeri at ak juróom-ñaar dong la bos foofu ak boo lay wuyoo xale bi nag daa jabetoon de ak asma am tamit hypertension ak yeneen ak yeneen mën a ca rëbës kii la dëkkoon laa la wax quartier ba waaw critique yéene kaa lu toll ak juróom-ñaar fukk ak kaa la Sédhiou am département bu Tëngéej de fukk ak ñett yu bees diggante jam ñaa bar ñi ak sàngal kam direct news de gis nga covid 19 ne kon maanaam ñoo nekk ci a guñ koo wër ndomb ba corona ba tey de maar day taali waaw waaw te gis nga corona joojee ah ma ngay rey ndax lu tolloog ñaari téeméeri junni ak juróom fukk ak ñaar deux cent cinquante deux mille ci ay doomu aadama de rey na leen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne ñetti million ak juróom benn téeméeri junni trois millions six jàngoro jo dal na leen xoolal Iran moom dëkk ba wàcc na daanaka téeméeri junni ci ay doomu aadama wax jàngoro dugg na le junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk rey leen Irak moo leen tane ndax Irak moom deeleegul téeméer yéeni kaay Pape Jogoy Faye gane dama ne la gis nga jàngoroy corona ji ah lees waxul bari lees waxul lees waxul ñoo ca bari le soleil yéene kaay ne en jëfandikoo nag artémisia gi waaw protocole ga daay de recherche ba daal joxe ci Sénégal gii ah xayma de gëm ko jafe de xayma yi ñuy joxe gëm ko day ah, lu tax ah, yow yow réew moo xam ne askan wa ca boppam waaw du ñuy dem hôpital de déedéet dana jafe lool ngir kon nga génnee ay xayma laa la wax parce que Sénégal moom bokkul ci suñuy jikko te bokkul ci suñuy cosaan jékki-jékki rek ne maa ngi seeti docteur médecin waaye tamit am na ci ñeneen ñoo xam ne de xetuk hôpital la ñu ragal nget ga waaye est-ce kon nag ministère de la santé xayma yi ñuy génnee ni lée dana neex a gëm looloy dëgg enquête yéene kaa ne dama ne looloy dëgg corona ji ak dem hôpital waaw jafe na de ñi kay dematuñ hôpital léegi laa la wax ñi diabète ak hypertension insuffisant rénaux yee dematuñ hôpital de xanaa ñu forcé leen loolee ne tax na kon ba gis nga hôpital yooyee waaw lañ doon am ca xaalis de amatuñ ko nit ñi dematuñ moo dox salaire hôpital yi centre de santé ak poste de santé yi waaw weer wii di ñëw de mardi grand place en tout États-Unis d'Amérique am na lu tolloog juróom ñaar fukk juróom ci ay sénégalais yoo xam ne ña a fa ñii xam ni kon sans domicile fixe lañ léegi ay SDF nu ñu ñibbisee ci réew mi la nu bëgg source aané en tout cas corona ji de li mbir mi xeeñ ak ah xirul samaan marti taali adduna bu tukki le quotidien yéene kaay ne en tout cas ni jàngoro ji di tasaaroo de waaw bu oto dañ naan mi ngi daw cent démb kay san quatre lañ am laa la wax Abdoulaye Wilane waaw nee mbir mi daal ni ñu ko géré ni li may saf saf yëngal la de saf yëngal ak làmbatu dëgg la laaste gisee jàngoroy corona joojee waaw saay bu ñu xëyee gën di ragal lu de gën di ragal lu nag laa la Sud Quotidien ne en tout cas waa kër di dugg de ñu koy wàll de libération yéene kaay ne musiba kumba kay jàngoro ji kay mais dama xoola altine ñaara dee allahu akbar talaata ñaara dee mu way àllarba ñoo jot te keneen dee na treizième décès xaaja maa la ko wax juróom-ñeent fukk ak ñeent ci ay at la am laa la wax yéen kaa yi Cheikh Mbacke gis ne ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn ci ay kaa moo am ci ñetti fan laa la wax xanaa lii mooy le témoin yéen kaay ne en tout ki ci dee ki gën a nekk xale de démb la ko def amagul juróom fukki at fanweeri at ak ñeent la am laa la wax direct news ne xanaa xamal leen ne Sénégal bokk na ci fukki réew yi yi jàngoro ji gën a dugg allahu akbar laa ilaaha illallaah looloo tax fukk ci ay milliards ngir wàllu mbéy mi rek campagne agricole responsable de dee mbay war naa xool nag bu baax séddale soixante milliards yooyee séddale mille yu Macky Sall yi de l'observateur nee na mënta ne aha maa la ko ndax yow patronat bi bi culture hôtel transport ñaanga mee mi yaa ñaa xuloo ko tasaaroo di évidence yéene kaay na presse bi culture et transport de Macky Sall mujj na caa dugg de dëgg la wal fa diri ne en tout ceeb bi de ak lëndëm lëndëm yi nga xam ne nag maanaam moo am ci équipement waaw nee neen lu nji ci lu bon Macky Sall njàkk uh-huh. xale yi ne waaw Macky Sall ci boppam kon moo war a dàq gorom bi lee waaw of nag na ci boppam bind nañ leen leetar te waaw waaw ngir nag ñi nga xam ne kon ay tojamaan lañ ñu démasqué leen feeñal leen yëkkati ay daan lal ko seenu ndodd laa la wax Guy Mari Sagna ak Babacar Diop yamuñ ca ndaxte nee nañu gis nga coowal ceebeeg bagage yi ngeen gis nii Covid bi waaw parafito lañ cay def di tappale ak di sàcc alalu askan wi allahu akbar critique yéene kaa en tout cas Macky Sall de dàq na gorom ba de Omer Seck waaw waaw nekkatul PCA bu Petrosen mari taw ñaan moo remplacer Omer Seck laa la wax neex tey pétrole gaz laaste kiñ dénk pétrole ba dee ay mbokam di cadre waalo waalo yi waaw jug nañu dee dama ne la cadre waalo waalo yi jug nañ ci jàppale kon Matar Cissé Mohamed Samb dee ci tribune yéene kay waaw nee na li ñuy tuumal Matar Cissé ci coowal ak ille du dëgg Mohamed Samb ne Macky Sall ci boppam moo la gën a xam ne Matar Cissé mi dee liggéey ka dëgg la te Matar Cissé moo jubanti waat Sénélec laa mais looloo tax président Macky Sall daal di koy dénk pétrole bi ak énergie du mu liggéey en tout cas ceebu Macky Sall bi de waaw ñi nga xam ne waru ñoo woon bokk ci bourse familiale yi waaw mais ndekete ñooñu ñoo nëxal yàq séddale ceeb bi maar di taali maa la wax lii cay man ceeb bi lee ceeb <laughs> ndaw coow waaye na xoolal ceeb bi ak lu mu bëri coow coow coow coow coow coow coow du tax ñu fàtte coowal pétrole ba di mukk parce que suul gaz du ko tere xañ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree mën a la